ça date depuis 1975 Bob batay chaque année dinañ gis ay services techniques ñëw fi taxaw ci caniveau bi wa assainissement les envoyés du pouvoir des bonnes volontés ku nekk dina fi ñëw taxaw ñi sax dina nat ba ñu espérer ni année prochaine li ñu daan dal du dal mais on comprend d'une part parce que euh, mbiru yalla la ndax ku xam ndoxu taw xam ni mbiru yalla la mais daf ci am lo xam ni bu xewé tay dañoo kontaan. Niron parce que non seulement euh, dañuy remercier le frère Ousseynou euh, ndax tey man jàpp naa un jeune qui xam ni la ku xam 2012 ba tey musul lâché te du xool ni fii laa dëkk wala fële là où que besoin xam nga doit se faire rek mom c'est par là il apporte son aide donc kooku non seulement il est c'est un protecteur social de un de deux amna yermande xam nga boy diriger wala ngay aspirer diriger dafa am lu jitu ci lo xamni mom la askan bi di xol moy yermande ci la sentir na ni fi c'est le poumon de la circulation ko xam réellement zone bi te ku xol depuis que ñu dindi ko batay les voitures nit ñi ñi ngi romb man gëj gis auto gëj gis nit chambre de commerce lycée banque gouvernance mairie tribunal donc moy axe bi la xamni ni moy axe principal Thiès nous dëkk depuis après tabaski bi bataille on est tellement peiné parce que non seulement élèves yi def bac di réviser ils l'ont fait en difficulté nit ñi jall c'est difficile ñi dëkk ci kër yi sont malades parce que non seulement il y a l'odeur mais dafa am tay Ousseynou ben apport ben apport naturel bu muy indi moy gis nga li ngeen di gis ni buñ ko fi bayé ba mu wow auto yi ñokoy koy dër les gens vont respirer ça té nit ñi lan lañuy respirer lo xamni mais avec ce qui se passe nee nañu Covid qui est là ñu bayyi askan bi di nooyu lo xamni vraiment mën na indi leneen donc je remercie une fois de plus au nom du collectif des habitants de Escale Sud. premier acte premier acte bi ñu defoon mo doon euh, jappalé suñu mbokk ñi nga xam ne ñoo ngi nekk euh, ci watu sugu mado bi te ñoom fofu ndox mi sonalal lool lool ah suñu xarit bi di njëgën ñëpp xam ko Thiès. vraiment sollicité woon ñu fexe ba defar foofu benn canalisation ba nga xam ne dina jëlee ndox bi nga xam ne moo ngi taaj ci buntu arweele buntu jumaa ji te sonaloon loolu dëkkandoo yi fexe ba muy walangaat dem ci mbattal mi loolu nekkoon na acte ba nga xam ne vraiment avant lii jotoon nañ ko def tey jii ñu ñëw tey jii désensablement troisième acte bi nga xam ne xalaat nañ def ko pour jàppale askan wi mu di lan dem ci zone yi nga xam ne ñoom ña fa dëkk seen kër yi ndox mi da koo nangu ñu xool liñ leen mën a jàppalee ci wàllu dund muy ceeb wala muy dërin wala muy suukar. nattu bu dalee ci cim réew ku ci nekk donte même bu doon 1000 francs nga yor sax na nga koy yëkkati ñëw indi boo yorul dara sax même bu doon benn peelu suuf nga mën a tibb ngir jàppale askan bi nga ñëw def ko ndax askan wi da koo soxla loolu nag bu ma koy wax damay sànni damay bàyyi xel une certaine opposition ba nga xam ne. ñom yakamti lu dul natu dal ci kaw doomu adama yi ñukoy koy am ñan ñi sax dem ba naan sénégalais yi li leen dal Macky Sall mo leen ko tek muy wax du ñaaw bu ñuy naqaru gatt gis-gis ak gatt vision wessul tey jii nii ay nit am ay naqar nga naan leen dal nit molen leen ko tek lolu du waxi nit du waxu nit ko nga xamne ne na jité bu rew naqar bu amé nañ jël politique tek ko fay ku ci nekk ci la nga mën ak ci fa nga dëkk nda jéem ngir soulager population yi bu état ñëwee mottali la ca des loolu mooy appel bi nag bépp politicien bépp bon volonté ku ci nekk fa nga dëkk loo mun a def ci désensablement ci jënd ay pompe di jënd ay vivre nga xam ne di mën a jàppale ñi nga xam ne tey mbënd bi fëkk na seen kër yi amatuñu fu ñu dëkk amatuñu lu ñu dundee ñu jàppale leen ngir souffrance yi ñuy dund mun a nekk mun a mun a mun a dal ba ñu mun delluwaat ci seen i biir njaboot. ñuy jaale ñi nga xam ne tey jii nii ñàkk nañ seen i jege yàlla ci ci ci inondation yi di masow ñi nga xam ne itam ñàkk nañ seen alal.